ginnaaw ne yow bi ñu santati leen gërëm leen ci ànd bi ak Aladji Malick TV kontaan nañ ci bu baax a baax ànd boobee am na solo lool yéen ñi nga xam ne yéen a topp ci Facebook bi TikTok bi nga xam ni daanaka am solo lool vidéo yi nga xam ni ñu leen ko fay jox muy information yoo xam ne yu dëgg te wóor la bokk na ci euh, bii di ki nga xam ni mooy Ismaïla Sarr nga xam ne ba léegi nii yetu Dakar wi nga xam ne moom la Crystal Palace tegoon ba tey yet woowu sànneegu ko ndax ba léegi mi ngi wëtal gone gi pour bëgg koo andi fa la nga xam ni waaye loolee ah, ba léegi équipe bam ah, ba léegi équipe bi nga xam ne mooy Watford ah, di borom mooy zone yi nangoogul bàyyi Ismaïla Sarr iso mi nga xam ni tey ji sax daa dugalaat beneen bii bii boo xam ne sax dana tax taxawaayam ci li nga xam ni mooy Ligue bi wala boog Ligue bi nga xam ni moo ne ca Angleterre ñu naan ko leadership loolee gën a am solo bu baax a baax keneen koo xam ni am na taxawaay boo xam ne taxawaay boon mën a bàyyi xel la du Edou mën di tey jii donte encaissé na benn bit boo xam ne mënta ñàkk ndax football a dugal a gagné ñoo ànd loolee am solo bu baax a baax ñoom ak Kalidou Koulibaly ñoo gagné euh, ñaari bal ci benn Kalidou Koulibaly ci première mi bi ca première minit ya amoon na ay quelques blessures yoo xam ni euh, daanaka nit ñu bari jàppoon nañ ni gone gi blessé na lu toll ci daanaka fukki euh, fan ak nangam pour coupe du monde boobee ñëw ñu ko doon xalaat bu baax a baax moom it bàyyi na xel li nga xam ni mooy gone yi nga xam ne ñoo nekk ci àdduna bi wala ngal kàpp di ay sénégalais di ko bàyyi xel pour mu nekk koo xam ni ku vigilant la ci li nga xam ne moo des ndax Chelsea amatul lu muy gagné ah, ci diggante fii nga xam ne daanaka benn wala ñaari match lañ ci war a footballaat avant coupe du monde bi kon kenn ku ci ne war nga mën a sàmm sa bopp téye sa bopp bu baax a baax Valverde ah, tey moom téewul boppam ndax moo jël li nga xam ne mooy am di match bi nga xam ne Real Madrid ak Celtic ah, ñoo ko doon football tey ji gone gi dugal ci biit boo xam ne bu yéemale teyit football ca ba mel ni mëkk na milieu terrain bi nga xam ne fi mu toll ni daanaka ci àdduna bi bàyyi nañ ko fi xel loolee ak mi nga xam ne mooy Federico Valverde laneen information di équipe yi nga xam ni qualifié nañ Napoli ca la bokk Liverpool Porto euh, club de Bruges Bayern Munich Inter de Milan euh, Tottenham Francfort Chelsea euh, Milan AC Real Madrid Leipzig Manchester United Borussia mun Benfica PSG di nekk équipe yi nga xam ni ña nga ca njobbaxtalu la nga xam ni mooy ñaareelu wërngël bi nga xam ni war nañ ko bana yebbi loole tamit ñu mën caa am ay sog yoo xam ni yu am solo lay doon parce que bari na équipe yu mag yoo xam ni tey jii daanaka seen pool deuxième lañ fa jël loolee mën na noo song équipe yu mag yi mel ni Real Madrid Manchester City ak yeneen